ci noonu nag yaakaar naa ne sénégalais yi ku ci ne ñu ngi doon déglu di seetaan liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko ciy def waaye nag ñu yàgg cee seq ak suñu yaay maman Selbé Ndom moo am ay kàddu yoo xamante ne yëkkati woon na ko ci làmb ji wax ci ay kàddu yoo xamante ni ba ñu demee keroog ci làmb ji gis nañ aussi ni nga xamante ni noonu la làmb ji demee tax nag ñu seet si waat ko parce que yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di làmb ji du ñu wayal suñu ay kàddu lu bëri dañu koy nuyu daal di koy bàyyi rek mu yokk mbokk internet yi maman ñu ngi lay nuyu bu a baax a baax di la ziare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا سنكونن من الخاسرين yal nañu yàlla jéggal suñuy bakkaar di ziyaare àdduna bi yëpp di sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sant sama baay mu yóbbu ci Serigne Touba ba mu mën a taxaw ci photo wax ak Cheikhul Khadim di ziyaar àdduna bi di ziyaar Seydi Mouhamed Moustapha sama kóllëre di leen ziar bu baax a baax. wóolu bi ngeen am ci man ak doyloo bi ngeen ma doyloo ndax seetkat yu bari na de waaye da maa taamu moo tax fu ma toll di ko rukk rekk ba mel ni laal. Mm. waaw di leen ziar bu baax di kontaan si seen retour bi ndax da ngeen a gore. bu leen neexoon du yéen dong nga ma jëloon du Sénégal bës rek ma jëloon mais yéen a dagg seen gasoil ñëwaat kon merci beaucoup. Mm-hmm. waaw di kontaan bu baax a baax. macha allah di kontaan bu baax ci kàddu nuyoo yu am solo yooyu dañuy taxaw rek ak yow ci li nga xamante ne moo amoon démb fële ca arène nationale ñu dooree ko rek ci li nga xamante ni moo di préparation démb lamb bi journée bi naka nga jàngataatee li nga xamante ni démb mooy bés bi ak naka la lamb ji doon déroulé. Hmm, ko gis décortiqué ko décortiqué ko wax leen lamb ja nam war a demee te lamb ja ñëwagul ba lamb ja amee la ma wax rek mu ñëwaat. musuma dugg kër Modou Lo nan lay xamee ne Modou doom bu góor la mujjee am mooy am ndam li nan lay gisee ñaari dàll benn bi war benn bi ma xam ne Modou mooy am ndam nan la ñuy xoole ñaari dàll tànku nit ñaari tànk mu jël benn bi féetale parcelle ma mën a xam fii ma toog ni parcel moom lañuy jox ndam bi kon xam-xam dafay naturel du béjjën du laar naturel lay doon ci deret lay nekk ak yàpp ak ndox ak yax man boobu laa am bu naturel bu mu jutwaale noonu euh, bi ngay waxtaan ak ñun danga ñu xamal carrément ne ndam li mu ngi ci wetu Modou Lo te moom nga gis ni moo war a am ndam bi ngay wax loolu yaay far nga ko tegoon gis dama defal Sénégal àdduna bi loo xam ne musuma ko defal kenn dama xool ci yàlla mi may won mu won ma maanaam Siteu dëppoo fi mu dëpp ñuul kukk mu ne daa daan Modou te moom fi mu dëpp moo ñuul kukk dara baaxu ci dañ ma ne Siteu daan na Modou waaye bi ma ko gisee gisuma Modou foofu lu ñuul kukk laa fa gis te lu ñuul baaxul nee naa leen dëpp boobu mu dëpp man Selbé bëgguma ko ça du daan mhm. balaa dara di am dóor bi ñu dóor fii Modou Lo fii. Hmm. génn na ci wax naa ko bët ba wax naa ko lu ma yàlla won la ba pare ma ñëwaat ngeen am loo xam ne kenn mësu koo am. Hmm. ma sànni pettaaw yi nga xam ne seen naturel moo tax ma jënd kër sama kër am na 10 ans sama kër ba amee kër ak léegi mat na 10 ans 2014 laa toxu si mille vingt 2024 mu nekk 10 ans ma génne ñeenti pettaaw. ne leen ku mag ki mooy am ndam ci ku ndaw ki Modou Lo mooy ku mag ki mhm. moo ëpp yaram ci lii laa ko xoole en mhm. direct lii du ay faux lu mu la ci wax du dañ su ma paree yow dinaa la wax kii dinaa ko wax ci kàttanu yàlla ak mbaaxam daf fi feeñ daf ci feeñ gis nga lii mhm. lu garaaw la lu ma mën la billaahi ci julli laa jóge wallahi tallahi lii dama ko mën ba mu ëpp sax parce que du ko foowee nii bu dëgg taxawul rek du ma ko génne te defuma ci dara defuma ci ndox defuma ci saafara nii ma ko jëndee nii laa ciy waxee ba jënd ci kër dem ci màkk deux fois ñaata la depuis kañ la woon. Mm-hmm. depuis kañ la woon. avant deux 2012 ba tey maa ngi ci lu mu am ci laa ko amee lii sunu borom def na dama ko mën dama ko mën dama ko gis bu baax. bu ma neexoon pale ba la fa nekk ma wax leen ko lu ma sama borom may la xëy na yu bëri damay camoufler parce que bëgguma coow jaru ko waaye senegal ku fi teg tànkam billahi lazi laa ilaha xam nga ne Selbé ku man la waaye nag du tax ma tiitaru wala ma fëgg dënn mm-hmm. mais làmb ji ni mu demee démb ndax xaaroon nga ko yaay xaaroon naa lu ëpp loolu ndax xam naa ne Modou Lo dañ koo xeex nee naa leen fi may jullee won naa ko léegi ay Aïcha Rasoul côté bi ànd ak Siteu mu ëpp fuuf côté bi ànd ak Modou Lo su ma yeboo ma ne euh, ku tuuti ki papis rek a nekk ci wetam Siteu nag ñi nekk ci côté du fu bëri lool ci suuf ak ci kaw lu leer laa la wax waaye falaa gis Modou sàngoo sangoo drapeau xaw ma woon ne drapeau la de maam aale laa ne affaire bi drapeau la mun na ma dëgg la drapeau la kay booba drapeau ba Modou Lo sàngoo na ko ba pare li may wax day leer ndax àdduna bi yëpp man la ñuy déglu ci làmb hmm, noonu laa gis ko demee euh, ci yenn yoo xamante ne dama kaa gis tey nga teg ko ci kanamu li nga xamante ne moo di émission bi bëgg naa ngi indilu si ay leeral limon yi nii nga xamante ne tey dañoo ñëw nga génne ko ne da nga cee bëgg a waxtaan ak ñun ndax li nga xamante ne moo taxoon nga def ko démb pour làmb ji lan moo taxoon li mooy yaay. chaque làmb. mbër bu ne. ak euh, sama vision li ma gis sarax ba ma war a génne pour am ndam ba ma waroon a génneel moo duloo te laajuma ko dërëm pour mu am ndam ci kaw Siteu limon la hmm. te ñaata million la ñu jox sëriñ si yàqaluma leen de lii laa génne sarax man am ndam lii lañ ma njëkk woon ñaari paani ma dem jënd 30 kilo limon xam nga dama doon julli léegi billaahi wallahi tallaahi jën jëm jënd 30 kilo limon séddale ko ci ñaari paan lool lañ ma wone ñaari paan limon yi sama néeg ma teg ko fa te dañ la ko woon pour nga génne ma koo woon waaw man luñ ma won rek mhm. maanaam dama koy def biñ ma ko indilee moom lañ ma indil ay bagage tegal ma ma xam ne damay am victoire bi ma tëddee biñ nee suba la combat bi. Mhm. lañ ma won mburu ma jënd 20 kilos mburu lii moo ci des lii laa ci bàyyi. da ko doon def pour victoire Modou Lo wala ko doon wax pour sa victoire ndax wax nga ni Modou mooy am ndam pour kana taxoon nga def lii. victoire Modou Lo du Modou laa wax ne mooy am ndam. dama ko jàppale. te du ma bind alxuraan su ma koy bindit kenn du ko gis million yu ñuy def ci sëriñ si billahi lazi la lu dul teg benn bagage boo xam ne c'est ma vie privée mhm. wallahi lazim li moom rek laay génne sarax pour Modou Lo am ndam ndax dañ koo sot hmm? barke Seydina Muhammadin dañ koo sot man it ma sol te bu ma neexee roi des arènes bi du jóg ci Modou Lo Selbé laa tudd séeréer laa su ma neexee ma teg sàngara yi teg ko fii lu toll ni limon li yore naa xaaj ma jënd ko di ko naan di wax nañ ko jël naturellement mais dajaloo sot doomu jàmbur ba mu diis hey ma jóg dagg limon gi rek di pàccal rek muy frox. sarax bi dem da nga ko doon dagg di tuub wala loolu ñu jox nit ñi la ñuy dem. limon daal la ngi nii falaayam limon ak mburum bokkuñ sax bokkuñ. kon démb gis nga ni carrément Modou Lo mii dañ ko jàpp ci mystique. bu baax bu baax dañ ko doon toroxal chaise am boobu lañ bëggoon a nangu. billaahi laa am wax wallaahi tallaahi waaye. baax na nañ dem. Hmm? billaahi wallaahi taala bu ma neexee. tamay jigéen doomu doon taalibe sëñ Bamba. Hmm. xaritu Seydina Muhammad yàlla di ma wonal boppam jël sama pooj bi nekk tàpp alxuraan wallahi bu ma neexee fii ba beneen déwén beneen déwén Modou Lo ngi day téye couronne bi te xoolal daw ma kër Modou man soxlawu ma ko mbër bu ma neex ma may la ndam. mbër di bëree jàkkaarlook man wow ma kenn Balla Gaye day bëri Tapha Tine ñu naan tafaatin ni mu toll dina ko dina ko gaañ nangam nangam ma dem ba këram xaw ma sol ma fa yóbbu dama doon jënd yoofu jënd rek jënd jënd lu ma deux cent et quelques mille ni sama chauffeur nañ dem kër Balla Yacine ne ma ah ma ne nañ dem kër Balla Gaye ma dem yéeg laaj yaayam mun ne ma nekk fa ma xool bëtt doomam xam ne Balla ngi ci biir ci biti mu ñëw na ko nii Balla Gaye nga dund maa dund mi ngi ànd ak ay xale yu góob góor yu bëri ma jox ko sama loxo di ko dangay ngay daan bu fekkente ne mës naa gis Jibril alayhi salaam di nga am ndam ci kaw tafaatin bu nekkee mës naa gis Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di nga am ndam. bu fekkente ne Cheikh Ahmada Tijani jox na ma loxo di nga am ndam bu fekkente ne Cheikh Omar Fouti jox na ma loxo di nga am ndam bu fekkente ne maam Baye Niass radiyallahu anhu man Selbé jox naa ko loxo di nga am ndam bu nekkee maam Limaamul Mahdi yu gis naa ko di nga am ndam. mu ne ma amiin ma ne yalax loxo ba ne ko nag deux lay doon dem sama yoon new ma ko may ma fukk ba léegi demaatuma kër Balla ñëw fanaan bët set ma woote ni leen Balla mbër waru ko woon a daan mhm. dañoo def liggéey ci buntu këram ba musiba baa ngi féete gauche boo jógee nii tali bi li ñëw xoolal càmmooy bi baax na mais sa ndeyjoor côté bële fa la monsieur booba nekkoon ma ne ko na ko toj am nañu yaakaar ne Balla bu bëriwaatee dina am dara. Hmm. waaw waaw euh, damay ñëw ak yow ginnaaw waxtaan nañ ci li nga xamante moo di wàllu mystique beeg te yaakaar naa ne ku ne làmb di nga wax li nga xamante ni moo di mystique waaye ma ñëw ak yow ci biir li nga xamante ni moo di komba bi ni ñaari mbër yi bëree lan nga ciy wax sénégalais parce que tamit ñu bëri dañoo gis ni benn mbër bi kese def beneen mbër bi deful dara sa gis-gis lan la ci làmb loolu damay mal placé pour wax ko. Ah, xam nga li ma wax moo gën a rëy mbër ba arrière rek mbër ba avancé kenn ku ne def nga erreur. bu ñu waxee ci Miss maa ngi ñëw rek ñu ma ne. ñaari mbër ku mu def. kenn ku ne say mbokk ànd naa ak yow def sa mystique. Hmm. ñaari mbër yëpp a def mystique. Hmm. kenn ku ne sangu nga. kii takku na. ndigg la ba mu fees gis nga ngemb lu zone li. Hmm. gis nga kër gële xoolal lii njële. Aïcha Rasul xool ko liñ jële fii laa toog ci waañ bi ne Modou lan la war a ngemboo rek siggi ci liñ gi gis yu jaune mel ni dañ ma ne xoolal sa waañ ma gis potu moutarde bu jaune ma ne xale yi Modou lu jaune lay lay ngemboo te fii laa toog dew ma parcelle wow ma ko téléphone ba laaj ko lan ngay ngemboo wow ma ku ko jege lu ma sama borom may la lu ma sama borom doon déedéet bak Seydina Mouhamed Balla Gaye am na benn làmbam boo xam ne dafa changé ngeen moom wax ngom ngem bu mel nangam lay ngeen boo déggoo lu ma la damay noppi rek te bu ngeen ma yëngalee sa classe gi élage bu ma yëngalee ma toj réew mi yëngal ko ndax damaa bëgg nga dëbb yow loolu moo lay arrangé <laughs> mais nga na ko ak Seydina Mouhamed woowu ma ko kenn du ko jege mbër Siteu bu bëggee di daan Siteu na nga bàyyi kàggu ku dee la kagul bàyyil kagul nu mu tudd sax Moustapha Siteu Moustapha la tudd Moustapha defal yëfi Moustapha di am li Moustapha di am man mi ñaada ma njéeme tungaan joomaay maa la gën a doon ceddo fuuf man ba tey am naa ay maam yoo xam ne dañuy jël bii dama juddu fekk sam mu ne moom buggul affaire ceddo bàyyil kagul Siteu bàyyil kagul bàyyil kagul pettaaw yeeg yëpp pettaaw yi su ma ko xoolee dinaa leen wax pettaaw yi Siteu takkalaal la jaru ko sangul sa garab jëru kagul kagul mbaxane yi def nii sax moo ko gën mbaxane yi am fi kii bi te def nii moo gën fuuf kagul soo soo bàyyee kagul nga am li nga bëgg mu am lu mu bëgg. barki Seydina mais dañoo gis yaay euh, signature contrat bi tamit ak ñaari mbër yi ku ci ne jokkalante nga ak sa morom ay kàddu. xas-xas loo si taw wax ñu dégg ni mu waxee. ak ni mu baree tamit démb dafa wuute gis-gis bi nan nga gisee démb biir combat bi ci géew bi ñaari mbëri bu ñu waxee ci mystique ba pare tamit foog ñu wax ci sport bi. xam nga man tey sama doom nga waaye bu ñuy wax am jàkkaarloo dama xool ni sama doom nga de yow doo xool ni sa yaay laa de hmm. dañuy neexal làmb dañoo jaay làmb ci waaye Siteu ku bëgg Modou Lo la Modou ku bëgg Siteu la gis nga bi ñu paree dañoo saafonte dem. mais làmb làmb noonu la dafa war a neex seetkat yi di toj naan lii day am nangam ak nangam. xam nga loolu mooy neexal làmb kenn ku nekk day taxaw di xaar kii li mu wax ndax dina am wala maanaam du am. ñuy critiquer si démb si ni mu bëree d'accord nga ci lu mu bëree wala nga koy critiquer. non na changé bàyyi leen xel si nag ci kanam. ci bu amee ku mel ni Selbé ku koy woo ci ruq di jàpp nopp bi di ko wàññi. bu dara jaree dóor arrêt ñu dóor ko arrêt ne ko nii ngay def ci kattanu yàlla Siteu bàyyi leen ko xel man gis naa Siteu te xam naa ne dafa am lu mu manqué dañ koy wax lu ko neex mbër doo ko wax lu ko neex danga koy danga nga jàpp ci nopp bi wañaar lii ngay def teg ko ci yoon mm-hmm. mais bërim bi bu baaxul baaxul ñu koy dóor rek muy daw xanaa deful box <laughs> ok rokkos bi nag muy daw pour lan da ngay jël sa gaal taxaw bu baax dara dara du dem lu ñëw nga baare ku la rokkos nga rokkos mais ñu koy dóor muy arrière ñu ñun ay tarkindaa la ah. dañoo tekki suñuy jàjj rek mais tarkindaa de <laughs> yoo xam nga ne man ngandam maami tarkindaa mais dafa juum Siteu bu déggee na woo sama numéro xam na Penda Penda Saam na woo Penda mu indi ko sama kër waxuma mu ànd ak kenn man rek bu ma diriger Siteu Siteu dina fi dooni champion dafa dañ ko desee tàggat bi moo des. ni ñu xoolee ñaari làmbam yépp ci nii la amee défaite. déggoo lu ma la wax Lac de sax ci la tane ndax reyante na sa Lac de moo doon rasu di daw mais bii moom wax dëgg yàlla bi ñu koy rokkas muy arrière. bu Modou Lo wutuloon saako yi bu ko dóoree day daan. nga am doo waxoon nga ni après làmb ji avant làmb ji cool dina bari après làmb ji cool dina bari mais dafa mel ni cool yi mu ngi ne cour jamono ji ndax Modou Lo mi ngi féete victoire am parcelle waaye gis nañ tam jàmm gën ñoom nee nañ euh, euh, euh, maanaam jël amut kat appui bi dafa leer ba tax na ñoom jamono ji ñu ngi ñu ngi feetu dafa am lu ñu bëggoon gisoo démb li Siteu def jël couronne bi teg ci bopp bi naan sama yaay nee na naa ko indi affaire xale la rek nañ leen bàyyi ñu bëggee tamit parce que dem yaakaaroon na sëriñ boo dem toog mu ne la da am couronne sëriñ buñ dem mu ne yaay toog ci sées bi yëkkati li nga am yëpp jox ko jox la butéel jox la sunguf jox la xaaw nga def yëpp ñëw mujjee coow. non bàyyi leen ñu bëggal bëggal seen xol démb lañ ko jàppee. Eh, déggoo li ma la wax Siteu moo njëkk def kat appi déggoo li ma la man damaa gis Siteu mu dëpp te làmb ji ñëwagul man Modou Lo ma ceeb Siteu joxuma ceeb sama ñaq laay dunde doon taalibeeb sëñ Bamba maa mën a jur Siteu maa mag Modou xaw ma kër Modou xaw ma kër Siteu bu dul kër Balla Gaye xaw ma ko ci mbër te Balla man may jinne Balla Gaye damaa bokk ci Balla Gaye ci biir man bu ma bàyyee Balla ñaata at ma dem retourné maag ak Gaye bi may ànd ak Balla Gaye am defet bi ma ko teree yónni nit ne bu mu ko def bi mu ko defee la am te ba ma demaatee këram ñëw sama kër fanaan gis naa lañ ko def parce que c'est mon fils mbër yëpp samay doom lañu mais Siteu fu mu tëdd lëndëm la moo waral coow li këriñ ku ñuul kukk la dëpp man waaw xam nga jàmm gën na leen bàyyi ñu feetoo ay xale lañ ñoom loolu la ñu xam nga man tey bu doon feetu man mi nga xam ne wax naa bien avant làmb ji tey man may feetu ndax yàlla may na ma ndam bu rëy bu benn seetkat amul amu fi benn seetkat bu fi décortiquer ni ma ko décortiquer wala sëriñ du dëgg ma dama décortiquer bët ba dina am problème fii mu loo dina dagg Siteu dina dina dëpp Siteu dafa jaaxaan dafa jaaxaan wala dafa dëpp ah dafa dëpp kon maanaam man maa waroon a feetu mais yàlla moo ne laa tam suuf fil ardi marahan ndudul jàpp julli wax alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex duma ko def ñeneen ñi xam ne seetkat bu mag baa ngi nii nee naa leen bu ngeen ma rakkaajuloo làmb ji combat petit ba combat grand dama koy wax ibbakan xam na may kan hmm? barke laa ilaaha illa laaj leen ibbakan dëgg-dëgg kan mooy Selbé Ndom bu la neexee nga invité fii ibbakan nga ñëw yaag maam ale ngeen toog ak Aïcha ibbakan wax leen kan mooy selbe laaj leen ka oram réeroon mu woom man fàtte woon naa ko sax moom ma ko fàttali billaahi wallahi tallaahi dama ma seet yàlla bu ma gisee ndeg Seydina lan moom ma wax ne Modou Lo daa mujjee am doom bu góor yaa ma ko wax wala keneen ak keneen kenn waxuma ko mais sama petaaw yi ma ko wax lii lii nga xam ne moos hmm. yow looy xaar ci jabar dooy xaar ah sot ah gis nga ba dee woo am nga benn boo xam ne yéen ñaar tolloo woo leen tolloo woo hmm, leen taxawaay num num lay sute fu mu koy jaare xanaa kay gën laa yaatu la ñuy wax moom gis nga ni carrément jàpp nañu Modou Lo ci mystique mère. bu baax jàpp nañu buñ ko di biñ jullee timis ba pare. Hmm. suñ koy jàppale wuloon du baax timis laa saraxe mburu mi timis laa teg samay bagages loo xam ne duma ko wax xeexuma kenn nag mm-hmm. damay bëgg li ma wax am moo tax may génne sama saraxi bopp man pour am ndam mm-hmm. xeexuma kenn mais il faut man su ma waxee ndax tey jii yéen journaliste yi yéen a gën a garaaw genre tëmbal gi dañ naan la maire dem na war de yaa ko waxoon génnee xam nga caméra boobu maan ne ak yow mi da ngeen naan mer eh, pourtant wax xam nga yow di nga rus sax da ngeen ah nañ ko suturaal mais am na ñoo xam ne duñ ma suturaal noonu la noonu dong la man damay def loo xam ne damay am ndam pour nit ñi man maa woo ci 77 744 39 18 boobu ak 737 67 46 boobu nga nekk États-Unis man na la 300 dollars wala 400 dollars nga dugal ma ko ma am sama ceeb sama kër. bu nit di def sarax koñ bii ma dëkk ma yëkkati kenn ku ci nekk kilo yàpp 4000 la ma yëkkati jox la nga toggal sa njaboot su ma amee ay saako ceeb def noonu ndax jamono neexul man looloo tax may dugal ay numéro téléphone pour mën a am lu ma dunde ak sama njaboot ndax rus naa taxaw buntu kër Eliman Lam ne ko mon frère rus naa tax rus naa laaj numéro ministre xaw ma ko xaw ma benn ministre aw ma benn xarit maa bëgg ñëpp waaye kenn bëgguma ah waaye yàlla bëgg na ma moom mi ma may xam-xam ma mën ciy dund maa ngi koy sant moo tax mais làmb ji moom wax dëgg yàlla si si te tëdd lëndëm na torop déggoo dara dara umpuma ci fii si tëdd nee naa leen bëgguma ko dafa ñuul wax naa leen ko bien avant nee naa leen fii si tëdd dafa ñuul mu ne daa daan mooluloo waaye fi mu tëdd daa ñuul kuk su weexoon kax mu nga mën a man leer na mais fi mu tëdd ci boppam moo ñuul mooduloo moom na xoolaat entourage am. waaye hmm. hmm. bu amoon bu amuloon ko ko sécuré gis nga ñaman dëgg dëgg dëgg demuñu ca làmb di xataraay hmm. ñi mën a def dëgg-dëgg yàlla nangu fi ñu seen si jaada fii lañuy ñuy toog jàkkaarloog sunu borom yore seen kurus ñaan yàlla mu may leen fi ñu toog te duñ dugg duñu duñu dugg ca làmb ja nañ bàyyi wone wuppi yàlla dàq war a waroon dàq wone moom mi ñu bind sàkkuñ de bu buñ ne bu ko neexoon ci seconde mu ramassé ñu ñun ñëpp ñu tëdd mel ne ay xar yu metti te def ko bu beneen yoonee dinaa bàyyi de lii ma gis nii. Hmm. ci làmbi Modou Lo ji su amatee beneen yoon dinaa bàyyi. loo gis si làmbi Modou jaxasoo rek. loo gis si làmbi Modou gi. jaxasoo rek dañ ko sot na Modou Lo xoolaat entourage am. waaw parce que tamit doon nañ ko wax avant làmb ji di ñëw ñu bëri dañu ngi sot Modou dañoo bëgg Modou perte couronne bi roi bi dañoo bëgg mu jóge ci ay loxoom kon loolu ñu doon wax dafa maanaam euh, mbër mm. bu demee ba ca digg ba ba yore roi des arènes dem ba ca digg ba Modou Lo moom mujjee yore roi des arènes ama seen yor na ko Balla Gaye yor ko Bombardier yor ko mm-hmm. Yékini yor ko da ngay xool ba Yékini di bëreeg Balla Gaye rek na meloon ñëpp ne Balla Gaye Balla Gaye yéene ko yëg ne de foofu la Modou tool Mm-hmm. waaye man selbe dong kese rek bu ma neexee billaahi wallahi tallaahi damaa yore njàpp Modou Lo dina ko yore lu mat cinq ans wala lu ko ëpp maa ko man Euh, yaay ko bëggoon poser benn question ndax gis nañ démb euh, combat Modou Lo euh, combat 2012 Yaxya Diop Yékini ak Balla Gaye do moo taxawaat mm-hmm. ndax léegi-léegi jot nga wax sa biir wax dañ ko sosotoo carrément comme ñu defoon Yékini dañ ci ni entourage Modou Lo am na ñoo xamante ne dañ ci bokk rax waaye dañoo bokk dañoo bëggoon ni démb kuréel bi fanaan fale ci jamono xam nga tey ji man mën naa ñëw sa kër mm-hmm. di la ree te xamoo ban intention moo ma tax a jóg tey yow boo amoon palaas bu ma neexee ma yàq sa palaas ba nit du fa tax dootoo liggéey man naa ko écrit mën ngaa gis koo xam ne day jóge ci beneen écrit te kenn xamu ko ñu yónni ko mu ñëw dugg waaw yow doo ko xam danga naan kii def maa bëgg rek doo xam carrément li ko tax a jóg fekk moom lañuy ñuy yónni muy indi missile yi te yow doo ko xam doo ko xam jamono ji xoolal na Modou Lo seggaat. Euh, bi nga xamante ne dañ wax diggante Modou ak moo waral lii ngay wax ni. non non non non ba bu dul Modou sax di Siteu maanaam loolu yàgg na ci mbër boo xoolee Tapha Tine ba ba njëkk a bëreeg Balla Gaye dañ doon wax naan dañu taxaw di garder bu kër Balla Gaye ñu ne Tapha Tine rey na nag bu ñuul tàmbee doo ko def pour dina fi indi fi ay affaire loolu dafa yàgg ci affaireu làmb daal waaw bu dul làmb sax mën nga ànd ak sa xarit nga am milliardaire moom mu jaar suuf yàq la ko fi ne nii sa loxoom day joor sax jaratu wul pour vous diir la vérité na Modou Lo seggaat entourage bu baax a baax a baax a baax a baax a baax billaay mën a mën a man a. Hmm. taxul mu doon yow. maa ngi dégg. Hmm. ci commentaire yi. Hmm. maanaam ci euh, écrit bi. ñu naan saa Touba gileem gi mu yore nañ laaj fu mu jóge am na xaritu Siteu bu ko doon wax. xam naa ñëpp dégg nañ ko gileem gi. ndax ñoom lu ñu leen def loo dañ koy dañ koy def. xam nga bu dul dëgg sax nit ñi dinañ ñaaw njort. est-ce dem waaw saa nee na dem naa jon waar waaw mën naa nekk. moo tax ma leen di wax ne ndànk rek parce que mën naa nekk bataille psychologique pour que yàq xelu ñii mm-hmm. nangam ak nangam ginnaaw demoon na jon waar nangam moom tam ñëw nañ ci ci open press Modou Lo ay ay kii la daal. mais est-ce que demu Jon euh, euh, Sa Touba Jon Waar dëgg la parce que dëgg nañu nag vidéo boobu noonu dañ ko ko yónnee envoyé ko mu monté ci waaw. wax dëgg yàlla damay waaj a julli timis mënuma caa wax lenn nag ndax gisuma ko fekkewuma ko ginnaaw man li may waxee dëgg ba ngeen xam ni kii amul caaxaan wax ko du dëgg la man foog naa ne xëy na Sa Touba wax na dëgg. dama ko jàppe comme ni sama bopp man parce que saa Touba ba ma koy xam élage mi ko ëpp yaram foofu lu tuuti la boobu daan utali Modou ay garab loolu dafa yàgg saa Touba dafa ñibbile woon mooduloo am na ku ko booleeg moom muy di ko utali ay garab bu amee combat ñoom ñaa daan daw saa Touba da doon daw ba na xam ni kii daa sonn bu ñëwaan ci moquette bii du nangoo toog ci fauteuil bi ci moquette bii lay tëdd xaritu Yaasin la sama doom léegi damaa xëy gis Sa Touba sikkim bi génn mu ngande ma ne ah Sa Touba mi ngi lekk xaalis teg bi ma waxee biram ñi ne ko Modou Lo day doon roi des arènes soo bëggee mu doon roi des arènes jox ma ma jënd kuy bu weex ndax dama gis muy cëpp cëppi ci wetu fëtë yi mais xar bu weex moo ko dendal biram ñi kii la ko jox Sa la jox xaalis mu ñëw fii jox ma ko ma dem daral jëndi ne ko day doon roi de arènes kon maanaam Sa ak Modou moom dafa yàgg ma saa Touba dara lu bon wax dëgg yàlla. mais mais daanu lañ daan dégg kàddu ci moom dañu ko sot dañu ko xeex dañu ko def nii mm-hmm. mais mbër am ndam ñu dégg kàddu yi ci moom parce que Modou tamit ak lu ñu mën a moom moo am ndam. comprendre ma mbër bu daan bu musaana daanu. lañ daan dégg dañ ko sot dañu koy xeex mais Modou. am ndam ba pare ñu dégg kàddu yooyu dañu koy sot dañu koy xeex. Modou dañ ko jàppale bu ñu ko jàppalewuloon du am ndam suñu génn wutoon sarax ñu war a génne sarax daa jar ay nag nangam ay million mu jën bi ma commencé wax làmb ba tey génneeku ma saraxu cent mille nan te damay am ndam. te même équipe nationale bi même équipe nationale seen sarax. am na ay mbër yoo xam ne bugguñu deret équipe nationale Sénégal buggul deret boo ci defee deret da ngay perte xanaa nga may nit ñi yàpp rek mais sarax pour mbër daan daa jar ay million pour lan ñaanuma mooduloo dërëm new ma ko may ma cent franc déedéet te su ma neexoon ma dawal sama oto dem ba këram force dañu may bàyyi ma dugg ñuy déedéet jaru ko man ngaa toog fi nga toog dimbale mbër ma xam nga li ma bañ ñuy sot nit nañ bàyyi yooyu mm-hmm. nañ bàyyi yooyu surtout nañ bàyyi nit ak wërsëgam la ko la ko ndeyam liggéey noo fekk nit ku ku ndeyam liggéey bay bëgg a dee mm-hmm. doom ja war koo noppal yow nga ñëw ne doy na yàlla rek moom lay neex rek ak xaritu yàlla yi nga xam ne <laughs> yàlla da leen di dee ñuy xam li ñëwagul rek mm-hmm. kese ñu ne doy na macha allah bu ma neexee Modou dina yoraat couronne bi cinq ans barakati laa ilaha illa muhammadu rasulullah te bu ñu bàyyiwul lii nañ ñite waay ñu bàyyi jàmbur nañ ko teg ci yoon bu ñu kuulee hmm. baax na hmm? fa yàlla denc bagaasu Modou Lo ya ca nees bu weex ba hmm. la ndam ya nekk daaw wax naa leen sedd amul de su ma ko fenee yàlla bu ma gisanteeg Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nit di nga gis nit rek yàlla defal ko dara te moom sax du xam à cent pour cent la la ko yàlla defal koo koy mooduloo bu ma may dara paccal sama limon gii def ko zi moo ma gënal ma taxaw buntu këram naan ko may ma juróom man su ma waxee làmb man damay wax sama def sama saraxu bopp man Siteu bàyyil kàggul hmm. kàggul ñu dee la ba pare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 am nga papa bu génn àddina bu nekkoon ak yow ci benn kër hmm. wala nga am yaay bi la jur nekkoon ak yow ci benn kër yar la xëy wan la ginnaaw wala nga am dëkkandoo boo xam ne wan na la ginnaaw du dëgg hmm. nga xam ne bis dina ñëwit yowit di nga wane ginnaaw hmm. nañu yéeneente jàmm bàyyi xeexante beeg sotalante bi baaxul man duma def dara loo xam ne bu ëllëgee Aïcha mii daf may tardeel euh, bintu bintu bintu rasul xalaatuma ko sax man fii su ma fi toogee sama saal bi dama am gan mm-hmm. billaahi wallahi taala du ma sax dugg aw ma fi benn soxla kon maanaam nit ki dangay toppatoo sa affaire boo amee nag loo war a wax nga wax ko muy dëgg nit ñëpp dina ku doxal dina xam ne lii wax nga dëgg mm-hmm. di ñaan yàlla Sénégal jàmm nekk fi gouvernement bi yàlla defal leen jàmm ah li ñu bëgg ba tax ñu reyante ñu di leen tëjëg di leen torturer di leen sonal ba yàlla may leen réew mii ah liñ ci bëgg yàlla nañ ko yàlla defal te maa ngi ñaan Ousmane Sonko ak Jomaay Bassirou Jomaay Faye waa kër Barti yi nañ leen may chance rek sarax leen rek bàyyi leen ñu génn ba beneen yoon bañ defaat parce que loolu mooy njiit bu neexoon tey usmaan Sonko rek dina leen relâché maa ngi koy ñaan ci barke Seydina Mouhamadine man maa tuddee Ousmane Sonko Ibadulaay Saalihin ku baax la ah maa ngi koy ñaan loolu daal waa affaire politique la rek na bàyyi mu jàll ndax fi mu ne nii dara amatul. barke Seydina Mouhamad. merci beaucoup jërëjëf maman ci kaddu yi ak waxtaan bu am solo bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak. ak ñun à travers Sénégal Buzz ak suñu naataango yi Buzz SN nii rek la ñu koy defee ak yéen di kontaan bu baax a baax a baax di leen jot di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.